aay boobu boo ko bindee boole ko li ma la ni xorom di ko diwoo day fajax yu metti rhumatisme moo ci gaaw waaw farote muus bii ngay gis nii jëlal aay bi nga ëf ko ci nit am neer sciatique nga ëf ko ci ñetti yoon jox ko frotté ba mu di ko diw ci tànk bi balaa moo def semaine mu la neer bi wér na aay boobu mën naa ci wax fii ba suba te du ma dellu ginnaaw li may wax xam naa ko dama koo dund dama koo xam dama koo li ma xam ci aay bi mënuma ko wax yaasin yaasin yaasin yaasin yaasin junni yoon nga door ci rek wal quraanil xakim xakim googu ngay yaatal def ci sa tur boole ko ndox ko ko di ci naan di ci sango balaa ngay faatu kuy sa morom di ko tiim may naa leen loolu waaw tuuba tuuba tuuba tuuba 28 nga raxasoo ko ci sa loxo te bañ a wiccaxo bàyyi ba mu wow bala ngay faatu képp ku la ne maa la dimbali ne ko on waxu dëgg yaay dimbali waat mais kenn du la dimbali lima ma la dafa leer de. mën naa koo topp fii ba yowmal xiyaamatu akbar ah. Mm-hmm. Mm-hmm.